بسم الله الرحمن الرحيم اه، نعم في بلاغي كيلو أجوكي كيلو أجوكي في نت الحديث نمكو دقيوان أك بكو جوخي أك نحن نجا دوبانتي يقوت نكو لديك yooyu yëpp ci xadis lañ koy waxee waaye ñu ko doon waxee keroog mooy ginnaaw bi borom xam-xam yëpp dañ koo mujj jël ndax li ñu ak maandu rek lay wan ci wàllu xam-xam ba tax lañ koy jëfandikoo doon wax ku dem ku ku fekk téereb jàmbur mu yàq ca dara ndax dañ ko jubanti sa bopp rek ku ko gis jàpp ne borom moo ko bindoon nii wala bokk la ci bënte war ñu koo leeral ba nga xam ne borom ñi nga ko dundal yow mu ngi ko dundal loolu mooy mooy mooy ak maam li noonu dañuy ci des bëreetul ci téere bi ñaar fukki bind ñaar fukkeelu bind ak ñeent bi mën nañ cee waxtaane ñetti ñetti mawdu bi njëkk mooy az-ziyaadatu fi nasabi wa gayri mooy ki ki nettali xadis ki nettali xadis ki ko ko nettali tudd na ci ab raawi waaye raawi ba saa tudd tur wi rek ak gut ci ibnu nàngam xam nga loolu moo koy ràññale ak gut ci ibnu nàngam yow mi bi mu la koy nettali yow sanad bi mu la nettali yow tudd na ci koo xam ne ak ci ibnu nàngam yow boo koy nettaliwaat ndax da nga da ci sañ a dolli yow na sab ak boo ko def sañ ma koy def ñu ak ziyaadatu bi ak ziyaada bi am rek loo xam ne ki la ko nettali daal moom daa yam fii yow na gis loo xam ne war na koo mën gën a leeral ndax da nga ci sañ a dugal wala déet من يزيد في النسب من قد فصل بأن يعني بأن يعني هو والذي شاكل وإن يتم نسبا في أول جزء فقط تجوزا أسئل وإن يسق لبعض متن وذكر لفظ الحديث فتمامه حذر وقيل بالجواز للذي عرف والمخلص اختصاص ذلك الطرف وبعد لفظة الحديث يجلب تمامه كذا كذا منتخب من يزيد في النسب من قد فصل بأن كن mooy ki ñu nettalib am ci kuñ tudd te tudduñ nasabam ne rek axbarani abdullah ak ki ma ko nettali noonu la ma ko wax axbarani abdullah man bu ma koy nettaliwaat ndax danaa sañ a yokk nasabu abdullah moom yokk ci ne ibnu masud wala ibnu ibnu omar wala yu mel noonu mu ne yasiru fi nasabi danañ ca dolli mooy sañaas nag waaye ci anam ji lay demee mu ne dana dolli ci nasab man xat fasala ki nga xam ne xajjale na xajjale na li boroom waxoon bañ xam ne nasab bi moom moo ko ci yokk waaye ki ko nett ki ko nett li moom tuddu ko fas fas lu mooy loolu mooy xajjale xam ne lii la waxoon <coughs> lii sa wax la yokk xajjale gi mi ngi koy defe ci jëfandikoo baat yu mel nii am na am حدثني محمد قال حدثني عبد الله محمد بما يوحد أنا ما حدثني عبد الله لما وقت من بمكو ينتلوك ما بقى لير عبد الله مو من لم وقت ابن سبب دوانا حدثني محمد am na abdallah am na am na gis nga noonu a am na abdallah ibna nangam am na maa ko ci yokk waaye nga ne yaani ma ne axbarani muhammadun haddathani ne yaani yaani ibna li nga xam ne yaa na ji man maa ko wax waaye leeral amtulaa bi ñu waxoon xam leen ibn abbas doon naa ko ci yokk wala ma ne huwa axbarani muhammadun haddasani abdullah ma daal ne huwa ibnu abbas ñu xam ne ibn abbas wér naa ko ci yokk waaye su ma nekk li moom abdullah rek la waxoon wallad shaakala allad alladi الذي لم لم لم لم نعم، لم الشعر والذي شاع كلا شاع كلا ما شاع بها وانك اقل النور لي يب واخي نو نور لي رك ما وي وانا ما نام نه نصب جي دال يو يا كو تي يوك واي كلا نت لون ديكو لو ملنا اي كاب اي لون باتاي بوني اخبارني محمد حدثني عبد الله اي ay ibn abbas nga xam ne kon ibn abbas man naa ko yokk kon danañ ko man waaye ci anam bi waaye dañ koy tàqale tàqale bi mooy nga jëfandikoo baat yi ñoom bañ xam ne ki nga jële moom pour yu rek la tudd yow ci yokk masa bi li ci topp nag muy wane koo xam ne te borom téere koo xam ne téere la bind koo xam ne ay xadis la tey nekk la ca njëlbeen ga raawi ba bu ñu ko tuddee tudd na nasab bi ba mat waaye ci biir téere bi bu dikkaatee du ko tudd ba mat mu ne yow yow da sañ da ko sañ a yow da ko mu sañ a nga koy taxantal taxantal dañu waxoon ne man ngaa bañ a jëfandikoo sax baat yi man ne bu fekkee moom ci njëlbeen ga tuddoon na ko ba mat ما وإن يتم نسبا في أول جزء وفكر دفا تود أبراوي تود نسبا بمر تنجل بين جنة عبد الله بن عباس كون ينن حديثي نوار فكر نن عبد الله رجيم يهودان السنة أجرن ابن عباس وإن يتم نسبا في أول جزء فقط jaggar ngari la ko tudd juzu fi juzu mooy mooy loo xam matut téere juzu lañ koy tudd donte amul yeneen xaaj sax waaye day lu tuuti loo xam ne matut ab téere rek lu mel ne benn mawdon rek da andi xadis yi ci aju ñu koy tudd juzu lu mel ne koo xam ne ci xunuut rek da cee andi xadis yim yim yim xam def mu mel mu beru loolu lu mel noonu ci njëlbeen nga bu ca tuddee turu raaw ba mat bu dikkaatee tuddaatul na sab bi yow da nga ko sañ a mottali man fa jaw wisan jaw wisan mooy na nga daganal mottali ko wa as jil as jil mooy àttaliq mooy dagan googu bu ko tënk ci lenn mooy moo xam teqale na moo xam teqalewut moo xam jëfandikoo na baat yi nga xam ne te ñu xam ne moo ko ci yokk wala jëfandikoo ko daa fekk ne boroom na ko ba it nasabam waaye li ci toppaat nag tuddut nasab koo àgg koo ci àggaate rek yow sañ nasab ci lu dul tax nga koy di loolu moo aju ci kon tudd ab raawi te bañ a tudd ndax su ko fekk ci téere sañ na ko mottali wala kii ñu ko nettali mu nettalee noonu bu ko nettalee wax mu sañ na ko mottali nag mooy day am koo xam day nettali xadis bañu bañu indi xadis ba mu mat tudd ci dara rek daan ne daan ne ba mu jeex loolu day am léeg-léeg ngeen gis ci téere téere xadis wala ab xadis ku koy nettali wax tuut rek daal ne alxadis alxadis lu mel noonu lay wax ne ku loo xam ne noonu noonu lañ la nettalee xadis ndax yow boo koy nettaliwaat da nga ko sañ li mu tudd doon jeex rek yow loolee loolee mu tuddoon ndax da nga ko sañ a tudd yow boo koy nettaliwaat wa in yasuq li baadi mat wa zakar lafz alxadis mooy bu andee lenn ci matn mooy ndur lépp kon da ci andi leen rek daal di tudd nag daal di wax baatu alxadis uñ ko faral def bu demee noonu nee na fa tamaamuhum xasar tamaamuhu mooy mottali ko mooy wax ko ba mu mat indi xadis boobu ba mu mat in xasar in xasar mooy in tanaaw mooy in tanaaw mooy dañ koy bañ dañ koy tere dafa gàntu mooy dafa terewu xasara mooy tere dara in xasara kon mooy terewu terewu ko mooy duñ sañuduñ mooy yow biñ la koy nettali moom waxu ko ba mu jeex da cee wax dara rek daat ne te boo koy nettaliwaat doo saña andi la mu andi lu dul lu dul nga leeral dana ñëw ci kanam leeral waaye mottali ko noonu rek te xaajale woo ba ñu xam ne mottali gi ci yow la jóge doo ko sañ ndax day mel ni kon da nga koo da nga koo waxal lu mu la waxul ndax waxula ko da ko mottali moom waxula ko kon boo ne nee na ma ba not mottali ko kon waxal nga ko lu mu la waxul wa qila bil jawaazi lilladi araf mais nee nañ nag ki xam ne xam ne ci xam nga xam wóor na ko ne li manqué lii la xam na ne li ci manqué lii la man naa motul lool ndax liñ ciy bañ mooy xadis seen kii daa wuute xadis mën nañoo bokk tàmbali bokk ak lu bu tuddee dara ci xadis rek daan ne ba mu jeex yow nga ñëw bëgg ko mottali du la wóor ba xam li nga indi moo koy mottali wala na koy mottali waaye ñu ne nag ki nga xam ne xam na ne moom lii moo ko mottali moom sëñ na ko sëñ غفرت الجواز lilladi araf waaye nag li mujje mooy li gën a wér mooy wal maxlasu ixtisaasu dalika taraf wa baada lafzati lxadisi yujlabu tamaamuhu kada kada muntaxabu al maxlas mooy li ci li mucc bi daal li ciy mucc li ciy ak mucc mooy li nga xam ne ko def mucc كولب موت موي كولب خامنا جوما خامنا ديفو لو سانيو موي اختصاص ذلك الطرف اختصاص موي اتباع اتباع اتباع موي لم اندي رك انديكو بنيو طرف الحديث طرف ما جيل بينو حديث رك نيو اطراف الحديث لنجي وخ اطراف الحديث مو جيل بين رك كون موم جيل بين رك لا اندي وون دا نك الحديث كون نينا mucc nag mi ngi doon ci yow itam nga indi loola waaye boo ko indee nag wa baada lafzatil xadis nga indi ko ni mu la ko waxee woon rek ba ne alxadis boo ko waxee ba noppi nag yuj labu tamaamu ñu door la ko mottali yuj yuj labu kon nag jee lii da nga axbara nii diw daal di wax wax ba ne alxadis moom noonu la ko waxee woon te doo cee yokk na ne tamaamuhu nàngam daal ne moom bi ma koy nettali fii la yemoon waaye nag la ko mottali mooy nàngam ku ko xool dana xam ne la ko mottali mooy nàngam li say wax la yow dana xam ne yow ki la nettali moom da koo tënkoon rek daa ni njëlbeen gi daal ne alxadis nga teg ca na yow ne tamaamuhu daal di andi daal koy andi tamaamuhu kazaar di ko mortal nag mooy nangam nangam bi mooy da nga koy tudd koo ne woon ci misaal ku la doon nekk ci xadiisu innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa daal ne alxadiis boo koy nettali yow nee na li lii mujj mujj mujj gi daal nga ne axbarani diw wax wax ba mat nga ne innamal a'maalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa al hadith dan nak tamamuhu wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi bam jeex mooy mooy mooy nga nga nettalee ko ni nga ko nettalee bam àgg fa mu àggoon nag nga door cee yokk nag ne li ko mottal nag mooy nangam gis nga li lépp ak kan maandu lay wane xaja mun taxabu nee na lii mooy li ñu tànn ñu tànn kon mooy li gën mottali nga ko ndax leeral ngay dina marché bi teew la jóge lii mooy ibdaalu rasuli bin nabi wal aks gis nga yii yëpp day wane xër guñ xëroon rek ci ci ci ak maandu ak bañ a soppi dara luñ sañ soppi luñ sañ ko soppi ñu ne ndax manees naa biñ lay nettali yow ar rasul lañ wax yow ngay nettali ne an nabi ndax sañees na wala biñ lay nettali an nabi lañ wax yow ngay nettali ne ar rasul ndax sañees na loolu lañ ciy dégg rek ndax kon sañ ngaa soppi ab baat soppee ko beneen baat bu mbokkal maanaam baat bii lañ la wax yow bi nga nett la wax beneen baat mu ne wa abdilir rasula bin nabiyi aw yaxkisam fil manhaji saniyi wa ma rawa bnu aazibin la yatanu li anna zaaka fi duaai sananu wa abdilir rasula bin nabiyi mooy na nga na nga wuutal na nga wuutale rasul bërëbu annabi mooy buñ la waxee annabi ki lay nettali annabi la waxoon bu la neexee yow nga ne ak rasul boo koy nettali boo ne qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam yow booy nett bu neexee qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam buñ lay nettali qaala annabi lañ la wax bu la neexee nga ne yow qaala rasul wala samiatu annabi sallallahu alayhi wa sallam yow nga ne qaala samiatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ji rasula bin nabi aw yaa kisam safaan bi itam wala nga safaan mooy ki la nettali ar rasul la wax boo koy nett daal bul neexe nga wax an nabi hmm. loolu nag nee na mooy fil manhaji saniyi mooy yoon wi nga xam ne yoon wu sani mooy lu kawe mooy hmm. daal mooy lii ma la wax daal mooy li jub lii mooy li ci loolu àndut ci bu dee ar rasul ak annabi moom àndut ci nga nga di ko nga di ko topp boo déggee rasul booy wax leen ar rasul boo déggee annabi booy wax ne annabi waaye ñàkk ànd gi it ci bay a ne comme te ñàkk ànd itam bokk ak fi ñuy waxe ñoom mu ne wama rawa ibnu aazibin la yataanu Albarra ibn Azib dafa nettali xadis bi yonent bi doon wax ne kuy tëdd ku dem bay tëdd ñaan bi muy ñaan yonent ba mu koy wax def na wa bi nabiyyika alladi arsalt mujj amantu bi kitaabika alladi anzalt wa bi nabiyyika alladi arsalt foofu la jeex ñaan waaye wa bi nabiyyika Albarra ibn Azib di ko nettali wala mu ñëw ci yonente bi sax di ko di ko di ko leerlu daal di ko leerlu hmm, bëgg bëgg bëgg moom mu déglu ko ndax juum na jëla juumul moom bi koy wax dana ko bi rasulika alladi arsal yonente ne ko déedéet wa bi nabiyika la ne ko déedéet wa bi mu ne wan ne kon xadis boobu nag laa yarta am laa yarta am mooy du sikkal dara ci li ñu wax foofu day mel ne kon sañu ko soppi ndax la bi yonte bi waxoon bara ne rasul mu ne ko déedéet fekkoon na rek dina ko déedéet bu doon bu doon sañ naa wax rasul bañ a wax nabi kon dina ko déedéet bu ko déedéet nag du nabi waaye rasul du rasul waaye nabi la mu ne wax jooju nag du du sikkal dara ci li ñuy wax ñu firi ne kon sañee su ko ba tey bu wax rek lu tax li anna zaaka fi duaa sanama li am na zaaka zaaka mooy mooy tënku ci baat baat bi ñu waxoon rek mooy a assaman mooy ab tariq mooy yoon wi fi duaa bu dee ñaan ndax li ñaan la woon ñaan moom baati ñaan yi ñu dikkee rek moom ku ko bëgg a ñaane wax moom moom kon fi ñuy waxe mooy bu duggut ci lu mel ni moo tax ñu wax bu fekkee bokkul ñaan ak lu xeetoon moom وبعثنا النبي est ar rasul wal mustaqarru tafanni bu dee fii nag daa bokk ci ñaan ñaan te ak ñaan moom kenn du ko soppi na ko borom ñaan rek bu dee moom bëgg a ñaanaat mu ko ñaan sa ñaan sa ñaanu bopp waaye boo demee bay jël ñaanu ak ñaan la rek bu ibn ku sikkal li ñuy wax ci ne sañ ngaa wàcc wàccee diggante rasul ak nabi ndax fi ko bi doon tere ñaam la te ñaam la loola moo koy yoon mooy lañ ko sopp fii li ci mujj mooy koo xam ne ab xadis boo xam ne da jëlee genn wàll ci kii jëlee genn wàll ci kii li mu jëlee ci kii bokkul la mu jëlee ca teen waaye suñ ko boolee mu mu mu doon benn xadis moom mu boole ko boole lu mu jëlee ci kii ak lu mu jëlee ca teen boole ko mu doon benn xadis loolu mooy li ci topp ni wa in yaji an kulli raawin baadu fa laysa fi xalqi ljamici naqdu مع البيان مجملا وجرح بعض به يجي بكل طرح وحذف واحد من الرجال في خلقهم نعم كل حال من وإن يجي عن كل راو بعض ما يبفك راوي بنك لن نجيب حديث دا جوجي موم ودا راوي بنك لن نجيب حديث دا جوجي موم فليس في خلط الجميع نقض نانا كون جاحس لب ما بول لب رج بول لي جوغي تي ياغ جوغي تي لي جوغي تي كيم داف كو بن نانا لول نقض امو نقض موي ماب موي تريو نكو رج باني باني نكو باني نغا نات الحديث بو خامنا خاج بي دنجو جيري تي جيو بن خاج ني جيري تي جيو بن خاج ني جيري تي جيو بوكو بولي نا ني جين واخ bañ bañuñ lool bañuñ boo koy nettali it nag euh, moom nag maal bayaani mujj malam waa day ànd ak nag bayaan bayaan nga leeral nga leeral na noonu la demee nga leeral na xadis bi may nettali jëlewuma lépp ci kenn ku ne daa da ci lu ma jële ci diw ak lu ma jële ci diw mujj malan bi nag mooy leeral bi mooy doo wax ne nangam laa jële ci diw nangam laa jële ci diw nangam waaye da nga naan rek am na ci lu jële ci diw ak lu ma jële ci diw ak lu ma jële ci diw loolu mooy mujj malaan mooy leeral bi leeral nga ne ci ñu wuute nga jële nga jële xaaj bu wuute waaye waxoo ko ci ne xaaj xaaj am boo waxoon ku nekk xaaj ba mu am boo ne di nangam ba nangam ci diw laa ko jële Dan parlar-ne amb tot el món, moom lenn lañ ci am ndax wax nga ne li tàmbale nangam ba nangam ci biir laa ko jël li tàmbale nangam ba nangam ci biir waaye nag waxee woon noonu dañ ne rek am na ci lu ma degi ci degi am ci ñu jële ci xaaj bu koy nettaliwaat mën na ne diw ak diw ak nañ ma waaye dee naan nee nañ ma rek andi lépp benn yoon noonu rek kon day mel ne kenn ku ne moo ko nekk lépp waaye dinaan nee nañ ma waaye nag da koy leeral waaye nag ku ci ab xaaj la jële ci moom mooy kon kenn ku ma nekk lépp waaye ku ci ab xaaj daa jële ci moom waxul nag ban xaaj la loolu mooy mujj na sañes na wa jarxu baadin bihi yaji li kullin sarf wa jarxu baadin mooy nag ñooñu ñooñu la ko nettali ne nee nga diw ak diw ak diw ñoo ma nettali lii muy bëgg wax loolu nag ku ne daa am lu ma ci lu ma ci nettali kon mooy xam nañ ne moom nett bi génn leen ñoom nett xam nañ loolu waaye xamul ku ci ne lan la ci lan la ci lan la la ca wax xamul kon bu yàlla dogaloon ñoom ñett ñooñu am ci koo xam ne dañ koy jar dañ koy jar mooy dafa doyut doyut ku ci amoon ku doyut rek mooy wa jar bu baax din jam ci jam ci kenn wala ñenn ya ji u bii sarxun li kull yajiu bihi qarxun di kul day waral kon ñu wàcc ñu wàcc lépp ñu wàcc lépp waaye bu ci amee kenn kuñ jam rek kon xadis bi yëpp tax mooy ginnaaw xam nañ ne am na ku doyut xamuñ lan la ca moom ak hmm? xam nañ ne am na lu ca moom waaye xamuñ lan la ca kon dañu xamuñ lu ca ca wér ak la ca wérul xam nañ ne kon am na ci lu wérul ndax am na ci ku wérul ginnaaw xamul nag lan la ca kon dañu bàyyi lépp mooy ya jiu di ji tarfan bi kull wàcc lépp lépp mooy nettali lépp nettali lépp wa xadfa waxidin min arrijaali fi xaltihim naam bi kulli xaali ba tey bu fekkee xalt bi am na itam mooy jële ci jële ci kii lii jële ci keelee jële ci keelee boole ko jaxase ko bu xasee am kon booy nettali dañoo cee bàyyi kenn dañu tuddaat ñëpp jële naa ko ci sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Jóob jële ko ci sëñ Mbàkke Abdourahman jële ko ci sëñ Sidi Mouhamad jële naa ci moom ku ci nekk suñ boolee li ma jële ci ñoom ñëpp nag laa nettali kon bu may nettali sëñ maa tudd ñaar rek wala mu tudd kenn rek am ñëpp lay may waxal ko waaxidin min rijaal fi xalfihim naam imna mooy na nga tere xalf waaxidin min rijaal ñu bañ cee ñu wàññi ci kenn fi xalfihim bi kulli xaal maa ngi doon ñu ko sañee ko ndax boo ko tuddul nettali waale waxam waxam kon da mel dañ koo askanal ñaar ñi kon wax nga lu amut askanal nga leen loo xam ne waxuñ la ko boo yemee ci ñaar rek ba la nga jëli moom mi ngi day mën ñaar ñi nga tudd boobu yorut boo tuddee ñëpp nag kon kenn ku ne la mu nekk li moom ñu ngi ñu wax yaa xàjjaliwut lam ca moom waaye kon wax yëpp tudd nga ñu la ko natt liñ doon wax léegi ci ci jon ci yoo xam ne saal ku mel ne ak zuhri yi ak zuhri ci borom xam-xam yu mag yi xadis yi la bokk te mag na moo njëkk tàmbale dajale xadis xadisul if bi nga koy nettali def ne wa kullu wa kullun xaddatani taifatan min xadisiha ñu tuddee ñi ko jële diw ak diw ak diw ak diw nee nañ dana nag ku ci ne nag daa am lu ma ci nekk moom la ko daa am lu ma ci nekk boo daxale xadiisu baadihim fi xadiisi baad ku ci ne la ma nekkal nag daa jaxasoo ak la ma ko ci def nekk teewul ma nag man xàmme naa ko ñu teg ci ne wa ana awaa li xadiisi baadihim xàmme naa ku ci ne la ma wax ak ma koy nekk nag maa boole lépp kon mooy sañ sañ sañ nañoo Voilà, Netflix jegit nuwude ànduloon lenn benn xissa la mu xadisu it benn xissa la waaye njëlbeen bi da ko jële ci kenn leneen mu jële ko ci keneen leneen mu jële ko ci keneen boole lépp nag nettali ko askanal leen ci ñoom ñëpp nag waaye waxaale nag ne ku ci nag daa am bu ma ci nekk waaw mooy bunt bi yii rek gis nga day wane rek moom ak maandu daal maandu ci xam-xam moom yiñ ciy gis bi yëpp loolu lay tegtale rek loolu lay tegtale rek ci nag mu leer bu dee di wala nett lépp nga xam nett lépp soo dee xam le loolu kon foog naa manes na jàpp ci yooyu hmm. le moteur.